chaîne de télévision privée bu Sénégal waxtu xibaar yi jot su nay màkkaane skis ñu dikk ak ci li ci gën a fës juróom-ñetti ay at ci tey ba ñuy fàttaliku Bassirou Faye nekkoon étudiant ca biir université Cheikh Anta bu Ndakaaru ñu faatoon ko nag ak bal gannaaw jàmmaarloo bu metti bi nga xam ne ñoom takk der yi ak étudiant yi ñu ngi ko doon amal di béer gu jot rédaction bu 2STV day def benn rubrique jagleel ko benn gox tey nag dañoo daal di dem euh, ca biir Mermoz Sacré-Cœur ci koñ boobu di Baobab lañ fay gën a nemmeeku moo di gox bu taaru euh, dajale euh, xeet yu wuute ci biir dossier bés bi daañu leen wax fu turu baobab bi sokke ko di ngeen ci ànd ak Tere Samb ak Ibrahima Diané leneen itam ci biir xibaaru marax yi moo di euh, brigade bu gendarmerie bu Saraya moom moomee nag daal dinay teg loxo ab réseau buy trafiqué ay sinébar euh, nekkee foofu foofule ca frontière euh, sénégalo-malienne li ni mel la brigade bu Joal def itam ndax teg nañu loxo ab gaal bu yeboon ci lu tollu 190 kilogrammes chanvre indien ca mangrove bu village Fadial lii moo ci fës léegi léegi ñu faram fàcce ko mbokk yi di rafetlu bu baax topp bi ngeen ñuy topp ci la première chaîne de télévision privée euh, bu Sénégal xibaar yi dañ koy door rek euh, tàkk-tàkk bi nga xam ne moo daal di am euh, ca église bu Caire ba ñeent fukk ak benn ci doomu aadama daal di cay ñàkk seen bakkan bu ñu sukkandikoo nag ci jëwriñ bi nga xam ne moom la ñu denk wàllum biir réew moomu muy xamle ne ab climatiseur nekkee woon ca ñaareelu étage ci boobu batiment te église ba nekkee fa moo waraloon li ni mel ndax dafa doon génnee saxaar ba juru yooyu lépp loraange ci ab coupure courant lii di parquet nag mu ngi daal di xam ne ubbi nañ ab l'enquête ci li nañ ko junjee woon mbokk yi ci xibaar yi tey euh, la ñuy daal di fàttaliku euh, fukki fan ak ñeent ci weeru août atum 2022 euh, kii di ndem si yàlla Bassirou Faye moom doonoon étudiant ca biir université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru moom Bassirou Faye ab balu fetel nag moo ko daal dee faat bésub fukki fan ak ñeent ci weeru août ci atum 2014 gannaaw jàmmaarloo bu metti bi nga xam ne sekkoon nañ ko ñoom étudiant yi ak takk der yi tey juróom-ñetti at bu ñu ay mbokkam di ko daal dee bi ginnaaw ay mbokkam Babacar Tambelou dellu siwaat na ci boobu événement. fukki fan ak ñeent ci weeru août ci atum 2014 fukki fan ak ñeent ci weeru août ci atum 2022 juróom-ñetti at ci ren gannaaw bi ñu fàtte ki nga xam ne moo di étudiant bi du Bassirou Faye ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru mu mel ni gannaaw faatuk Balla Gaye di étudiant ci université bu Ndakaaru ci atum 2001 daanaka sax ñoom ñooñu ñu ngi gisaat seen geneenuk étudiant ñu daal di koy faat euh, gannaaw ay tool ñaxtu bu nga xam ne amoon na li ko waral rek bokk na ci yéexaayug fayug bourse étudiant yooye ñu yebaloon leen ci campus social bi ngir rek ñu mën a delloo jàmm waaye it ak dal mu mel ni nag ñi nga xam ne ñoo di takk der yi lañ fa fekk it ak it ne étudiants yi jàmmaaloon ak ñoom nekk na lu nga xam ne. metti woon na lool loolu moo waral sax ba ba ñu jeexalee seen ay grenades lacrymogènes te teewul rek mbir mi di ëpp loxo si na rek ñu daal di tiire ab bal boobe boobee daal di dal ci Bassirou fay mu ñàkk bakkanam mu nekk nag moom moo xam ne daanaka tuddoon nañ ci itam ñetti takk der kenn ki ci wuyoo ci turu Ndong Mbong Waly Saliou Ndaw Sid Mohamed ñoom ñetti ñëpp ñu tegal noonu loxo waaye nag gannaaw ba ñu l'enquêteur rek daanaka Sidi Mohamed rek lañ jàpp ni moo def mbir mi le ci noonee sax ñu daal di koy daan ñaar fukki at travaux forcés waaye nag ci mujjantal ga daanaka at travaux forcés rek lañ ko dal di tegandi naka noonu itam juróom fukki million mu war ko fayandi ci amande. ngir xeex wàllum criminalité transfrontalière transfrontalier ak lu jëm ci trafic international de drogue brigade bu gendarmerie bu Saraya euh, daal dinay teg loxo ay sinébar bu dal di takku lool ndax foofu la ca Kédougou ca Saraya gendarmerie euh, daal dina fay jàpp ab buy trafique drogue ca frontière euh, sénégalo malien ca village bu ñuy wax Goudiya nekkee ca arrondissement bu Bembon ñu teew teewlu ay kàddu lieutenant Djibril Félix Sembène weer yële passé dañu amoon benn xibaar bu ñuy wax ne si benn dëkkuwaay bu tudd Buguda am na ñu fay yëngu si xetum jaay ak jënd si neebar bi ñu waxee renseignement boobu nag bi ñu ko amee si le commandant brigade bu Saraya adjudant laay Diaw Ndiaye jël ay élément am leen foofu ñu jaxasoo at waa dëkk bi di leen surveiller di jéem a am le maximum si ay information village Bougoudda mu ngi féete si penku brigade bi à quatre-vingt-cinq kilomètres mu ngi am frontière at Mali par le village bu ñuy wax Djila Fundu bi ñu tegee dispositif bi nag di ko topp di ko topp ba le 24 juillet si la ñu ñu jàpp ku ñuy wax Fadjigi Sissoko biñ ko jàppee nag fekk nañ si moom kilo at libre si xeetu sinébar bu ñuy wax yamba biñ ko jàppee ñu yóbbu ko si brigade ba di ko laaj di ko laaj di ko laaj si lañ ne en plus yamba bi mu jotoon yore yore woon na benn saak boo xam ne daf ko bàyyi si àll bi bi ñu àndee at moom nag ba gis saak bi bi ñu xoolee saag bi si biir si lañ fekk ay sachet yu ndaw yu def poudre bu weex léegi poudre bu weex boobu nag bi ñu ko jëlee ñu jox ko suñu spécialiste yi ñu testé ko après résultat bi daf nañu ne loolu cocaïne la léegi enquête bi mu ngi continuer pour ñu jéem a xool ñan ñoo bokk si réseau de trafic boobu parce que réseau de trafic international la ñan la ñan ñoo ci bokk pour teg si ñoom loxo dañuy daal di des ci ponk boobu sax ndax brigade bu Joal moom itamit dal di nay teg loxo talaata euh, juróom fan ci weeru août atum 2022 euh, gi ab gaal bu yeboon ci lu toll 190 kilogrammes euh, ci Sinébar ca mangrove nekkee ca village bu Fadial diggante Jifeer ak Joal ñu teewlu ay kàddu na kolonel Alioune Diop. te débarquement mi ngi naroon am ci guddi talaata. 9 août jàpp àllarba diis août bi ñu jotee renseignement bi si dañ jox instruction waa gendarmerie bu Joal ñu teg benn dispositif bi nga xam ne day da leen permettre ñu mën a surveiller waa ji nar def débarquement bi mais aussi ñu jàpp ko bi mu demee ba seetlu ne ñàkkul ne am na ay gendarme yu koy surveiller si la bëgg changé changer site bi mi ngi na doon def mi ngi ko doon defee Fadial mu nar a dem Fimela pour defee ko foofu. ci loolu nag la ko gendarme yi topp biñ ko toppee ba mu xam ne léegi mënatul rëcc nag si la commencé di débarquer produit bi muy yàmbaay yi débarqué na ko te xaayul xaarul ñi ko doon jël si ñëw jël si ko parce que dañ kaa bett bi ñemee nag ba jàpp ko moom sëriñ fuyee gaal gi biñ fuye gaal gi nag gis nañu fa set sàggu yàmbaa biñ ko xaymaa yépp pesé ko mu ngi nekk cent 190 kilogrammes ñu jàpp ko moom teg loxo gaal gi ak moteur bi ak produit bi moom mooy 190 kilogrammes chanvre indien yi lii nag daf may permettre ma lancer benn appel population bi parce que dañoo seetlu ne drogue bi bëri na secteur u Joal wala Petite code te day naxasal wér-gu-yaramu xale yi moo tax ma leen di ñaan képp ku am renseignement yi nga xam ne moo ñi permettre ñu mun def suñu liggéey ba jàpp ñooñu nga yóbbal jébbal ko gendarmerie soo ñu ko jébbalee rek dinañu permettre. ñu mën a ay opération ba mën a xeex ak lépp luy nuroog wàllu sinébar dañuy wax euh, weneenum ponk ci xibaar yi jëm ci euh, GIE bi di Go Girl moom nag daal dinay amal ab camp de patronage colo cuisine euh, ci diirub ñaar fukki fan ak benn ngir neexal vacances ndaw yi nga xam ne ñoo nekkee foofu la ca commune Mermoz Sacré-Cœur ñaari téeméer ci ay ndaw nag daañu leen tàggat lépp loo xamante ni jëm na ci wàllum togg ngir ñu bëgg lépp lu jëm ci waañ bu ñu sukkandikoo ci ku jiite bopp lépp GIE di Amsatou Gueye moom nag muy xamle ne taw yii dina ci dinañu ci daal di mën a jëriñu bu baax a baax ndax dinañ leen gunge ci li ni mel dañuy teewlu leeral yi Fatima ak Papi GIE bi ñuy woowee Google bu commune bu Mermoz nag dina daal di amal ci vacance scolaires yi ab initiative boo xamante ni ñoo ngi koy duppee rek colo cuisine ñaar téeméeri ndaw nag bu cité bi dinañ leen daal di former ci naka la ñuy toggee ci art culinaire maanaam waaye itam ci ay art de dressage de table. loolee nag solo si mooy mu tax rek xale yi gën a bëgg li nga xamante ni moo di togg. suñu sukkandiku ci présidente présidentu GIE bii di Google di Amsatou Gueye daal dina xamle ni initiative bu ni mel dina tax rek ndaw ñi bañ a dem rek ci ay activités yoo xamante ni baaxul. GIE Google ñu ngi ko sos il y quelques années mais également ñu ngi xalaat def formation bi ndax itam dañu gis ni vacances ñaare xale yi dañuy nekk ci activité yoo xamante ni daal gënul. ñu ne nag dañuy jàppale waajur yi ndax léegooleeg jot du mayeek yooyu pour ñu mën a jàngal xale yi ñu togg ñu daal di dajale lu mat ñaar téeméer xale yoo xamante ni daañu leen former ci togg wolof forme leen ci togg tubaab waaye également jàngal leen ay art de table nooy dressé nooy décoré yooyu utilisation abusive bu réseaux sociaux yi nag doon ab jafe-jafe ci ndaw ñi kii di Diawe Kouyaté nag nekk directeur des collectivité éducative daal dina xamle ni faw rek ñu dellu ci valeur yi nga xamante ni ñoom la fi maam yi bàyyi woon moom jàpp na ni ndaw ñi war nañ leen a gunge bu baax a baax ci naka la ñuy utiliser xarala yu bees yi. fas yéene jël xale yooyu ci 21 jours dolli leen ay jikko rafet ndax bu ñu xamee ni thème bi génn ren. mooy collectivité éducative et nouvelle approche de la citoyenneté numérique gis nañu ni eh, jamono ji ñu toll nii at yi weesu ni ñuy utiliser numérique bi baaxul boo demee ci réseaux sociaux yi xasante yi xas gor yi saaga yi joxe information yi bon loolu si suñu jikko ñu bëgg na accompagner ndaw ñi eh, wax leen ni nan la utiliser réseaux sociaux yi ak numérique bi ba nga xam ne bu ñu ko utiliser nañ ci wax lu baax nañ ci def lu baax ndax ñu loolu la ñu baaxoo ñu sénégalais yi eh, leen seen i jikko à travers ci yoo xam ni théâtre e dina jàngale way dina jàngale waaye itam suñu yëfi cosaan bu ñu ko dellu suwaatee xale dinañu xam ne ñun ay citoyen sénégalin yi te buñ ci jëriñoo ëllëg mën na leen jariñ rek eh, ci seen dund. Google allez les filles dem leen yéen jigéen doon na rek ab GIE boo xamante ni day daal di œuvrer ci promotion wu entrepreneuriat féminin waaye tamit day yëngatu ci jàppale jigéen ñi bu baax a baax ci ay secteurs yu bare. ci ñetti semaines yi nag Google dina daal di am rek lii di responsabilité jàngal spécialité sénégalaise yi wala sax européenne yi ñii di ndaw ñi waaye itam dina ci boolewaale ay technique de dressage de table yoo xamante ni ñoom xale yi dinañ ko daal di jàngale ci loolu nag dinañ leen utal tamit ay marraines yoo xamante ni dinañ doon rek ay royukaay ci ñoom xale yi lii lépp nag lu ko gën a sóob mooy daal di jàppale parent yi ndaxte duñu am temps bu bari ngir rekk mën a jàngal xale yi ci jamonoy vacances yi nañu ko junjee woon ca bopp ba rédaction bu 2STV yi da leen di jagleel dibéer bu jot rubrique boo xam ne da koy daal di eh, jagleel gox yeeg goxaat yi mu dal di fay eh, dem def ab taxaw seetlu eh, ni ki tey nag rédaction bu 2STV yi dafa daal di dem foofu la ci commune bu Mermoz Sacré-Cœur ci koñ boobu ñuy wax Sicap Baobab Baobab mu nekk gox bu dajale ay xeet yu wuute mu di koñ bu dal waaye it taaru lool ndax cet gi nga xamante ne nii daal dina fay nekk naam bëriwuñu ay jafe-jafe jafe-jafe waaye nag daal di nañuy nemmeeku ne xar kanamu boobu uh, ngi daal de soppi li ko waral moo di tabax yu bees yi nga xam ne ñu ngi ko fay daal amal uh, si seen biir uh, dossier bés bi Tere Samb ak Ibrahima Diané ngeen ci ànd ak ngir ñu wax leen fan la turu baobab boobu daal di sokkeekoo. ci diggante cosaan yu bàyyeekoo ci biir réew mi ak biti réew gox bi léegi nga xamante ni sanc nañ ko nag ci atum 1954 ba tey jii nag moo ngi woyee di dëkkee xarkanam bi nga xamante ni daa mucc ayib ci teewaayu guy gii nag nga xamante ni daanaka sax moo sanc bi koñ gox bi bile nag ci ab wéet na yàgg dëkkee su weesoo nag teewaayu xale yi nga xamante ni ñooy faral di foo ci medd bi parce que avant ay baobab rek moo fi nekkoon loolu moo si ka baobab avec S quartier bi ay boobaab moo fi nekkoon moom lañ doon wax guy gi ay guy jégg bon mais ça li on a vu y avait des ay cap-verdiens am tam beaucoup d'étrangers ay genre comme niñ koy waxee ay togolais bon Cameroun yi bëri na parce que xam nga c'était avant l'indépendance fii culture bi vraiment ne di dëkkuwaay bi amuñu benn problème fii parce que surtout côté ay Capverdiens yi avant xamuñoo comme seen mariage dañuy patu ko le vendredi le samedi dañuy noos mais ñëpp ensemble lañ ko doon boole quoi maa ngi rappelé quand ñu on était plus jeune dañuy yàkkamti sax yu mel noonu am ak ñi dëkkuwaay yu tam boo ñun ñëpp xamante woon nañu nag ñëpp xamante amuñu benn problème. sant yàlla bu baax vraiment fii c'est c'est paisible y a pas de problème amuñu benn problème bu fi nekk gisuñu fi ay agression xale yi vraiment ils sont dans ku ci yaa ngi ci diine. xale yi gis ngeen leen ñu ngi ci guy gi fii des fois dañuy xasaay des dañuy jàng. jëm nag ci kër yi daanaka xar kanam bi nag daa ami ay coppite mu doon li nga xamante ni nag ñi fi ñëkkoon dëkk ànd ñu si benn ci ñooñee nag di Joseph Xavier Benoît moom mi nag ci 1957 ba tey jile mu ngi fi dëkk. dafa am dafa am dafa am loi dafa am yoon kii bu taxawee fële mu ngi gis kii kenn benn jigéen wala benn góor bu simeeku. ndax lan xaalis bi ko ko may loolu yoon la duñ ko bindoon kenn waxul. kenn waxul ñëw fii jënd suuf ba pare di tabax étage buy def juróom-ñaari niveau ba pare tiim tiim tiim sa dëkkandoo fii fu ne nii après presque juróom juróom-ñaar fukki at d'existence quartier bi fu ne nii war na nekk patrimoine classé comme Gorée comme Saint-Louis mais maintenant c'est plus possible kenn mënatu ko def. muy koñ bi nga xamante ni itam bari na ay terrain de jeu yi nga xamante ni dañ ko jagleel ndaw yi ak xale yi. waaye nag daa fekk ne seen teewaay rek fii ci gox bi bile amulul benn yitte ñu ko jagleel bu ñu sukkandiku ci papito di ab ndaw activiste itam. léegi moom suñuy defar duñ defar li nga xamante ni lu garanti la ñun loolu lañ ko mën a waxee parce que sooy xool ni sama ginnaaw yaa ngi gis fawukaay yi wadd noonu yu orange yeeg yooyu noonu yëpp fii lañ ko defoon mais doon na ay fawukaay yi nga xamante ni xale yi mënuñu ko foo te soo defaree tamit par exemple benn jardin public amul moniteur wala amul yooyu noonu je vois que ni. loolu gaañ xale yi la mais mënu leen kii daal euh, mënu leen satisfaire. teewaayu guy gi nekk na lu am solo lool ci mag ñi ak ñi nga xamante ne ñooy yëngu ci wàllum tàggat yaram mu ami ay anecdote yu bëri yi ci mën a wax jëm ci équipe nawetaan bi bi léegi wax. booba bi génn nañ ko bi ci diversité bi mais daf yam benn booba bu mag moom mooy guy gi donc guy gi bañ nañ sa xale yi nawetaan dañ leen wax bu gi bu guy gi saxee rek booba su may attention sa à dire si moom. day dina def affaire waaw guy ji moom mi ngi fi moom mooy daal vraiment symbole baobab. fi nga xamante ni ñun dañoo yàgg dañ ko fekk nii ba déjà te ñun dañuy jaayante à ce que niñ ko fekkee noonu rek xam nga muy gën di di wéyee noonu daal ba tax na am na ay jamono sax amoon na melokaan xam nga amoon na ay mbalit amoon na ay grava et tout mais ñun jeunes yi bi ñu décidé pour jëlee ko fi xaaruñu si mairie. ñu si benn autorité politique xam nga ñun ñoo jël suñu engagement ak benn peel ak benn brouette ba keroog daal muy muy nekk ni nga xamante ni tey jii nii ku ñëw da ngay sawar a toog te da ngay sawar a gis te ñun tamit dèjà xam nañu ay secret yu bëri yi nga xamante ni moo si nekk daal parce que mooy maanaam di xëy di ko bale di xëy di ko bale yow mënuloo am lu la metti ci journée yooyu noonu maanaam te ba pare gis nañ ne tamit loo si euh, loo si def daal payooram di nga ko gis. Sicap Baobab nag nekk koñ bi nga xamante ne bëri na fi lool ay aada ki cosaan yu fi daal di daje bokk nag ci commune Mermoz Sacré-Cœur amee nag lii di maire Barthélémy Diaz. su fekkente ni nag Sicap Baobab amee na ay coppite ci dëkkuwaay bi koy baax yi moom nag dañ ko daal di samp ba tey jii loolee nag bokk na si di woyal di delloo njukkal ñi nga xamante ni ñoo fi dëkkoon te béy fi seen waax. benn ci li nga xamante ni mooy firndeel li ni mel bokk na ci rond-point Jean Paul Diaz bile nga xamante ni nag nekk na bërëb bu am solo bi nga xamante ni dañ ko fee def rek ngir gën a mun a ràññee rek bile koñ. mama di ko jaajëfal lu bëri moom Tere Samb mu nekkoon euh, dossier bu ñu leen di jagleel euh, di gu jot ci gox yeeg euh, gox goxaat yi ñu daal di dem ca bitim réew wax ci yëngu-yëngu gi nga xam ne daal di nay am foofule ca Kenya gannaaw juróomi fan ba ñu amalee seen élection ñeel élection présidentielle yi ba léegi fësalaguñu nag résultat yi loolee nag daal di jur fitna ndax xaar gu yàgg gi nga xam ne ñu ngi koy daal di xaar jamono ji jamono ji nag ku ne di joxañ sa morom baaraamu tuuma. ndax lañuy ragal moo di càcc daal di am ci yooyu lépp élection waxtu gi temme nag dal daal di nay am tuuti bu ñu tam ba ñu tàmbalee waat wàññee lu jëm ci wàllum résultat yi ñu génnee ay takk der nag ngir ñu daal di mën a contrôler boobu lépp situation waaye teewul ay association yu bëri ak it ay ONG ñoom it daal di ñuy fësal ay bataaxal ngir woo askanub Kenya ngir ñu daal di ànd ak dal mbokk yi foofu la ñuy jaaree sax yëkkati euh, jotaayu xibaar yi di jaajëfal képp ku ci jàppoon ba mu yemba juróom-ñetti waxtu Ajara Bonaar di Cissé dina fi teew jox leen xibaar yi ci kàllaamay tubaab laata loolu woy leen di seetaan sunu ay programme jaa ngeen jëf